Je je je je. Je je je je. Welcome back, welcome back. Welcome back to another beautiful edition of the 360 show. That comes your way every Tuesday from the hour of 7 to 9 p.m. of course. My name is Master Fo. Of course, yeah. Yes, yes, yes, yeah. Again, you all the citizens are the, who clock on every Tuesday to make sure, you know, uh, they log on to uh, 100.4, you know? Of course, ñu ngi judge for the Rasulin team yeah, ñoom ñoom Riza and everybody yeah. Of course, we all doing the same thing, entertainment like you know, music, lamba and everything you know, they all goes together yeah. Yes, of course, another another Tuesday, another Tuesday, another guest. yeah yeah yeah Right raj naa Sobrika my junior noo ko rajee you know uh, ku ñoo déglu rek di nga xam exactly who is in the studio who is in the studio right now who is on fire on the internet right now you know what I'm saying so yeah that's what we do you know anybody who is um, uh, anybody who actually locked up the internet you know uh, we try and talk to you you know uh, about what you did and so on yes you know um, um, tey am um, Junior King all the way from Abuko you know a youngster coming up, you know, firing up every place that he go. Yes, so lu defrek def rek um, uh, lu ñoo def rek by ñu uh, bàyyi ñu ubbi maykam uh, then ñu door chit chat yeah you door chit chat right away. Junior, what's up? Yo, não faria mesmo. E cool e aí cula. Meu, mas. Tá aí, nega punkal boy. I remember. <laughs> I, I remember the last time when I went interview at uh, at Paradise, huh? <laughs> yeah, but uh, it's all good, you know. It's yeah. all good. It's all nice. I'm, Comme really happy. Comme here. Sem boy la Junior King, aboko boyo. Rapa i page page rek te sem food du je. Rapa i page page rek be present food du doy, you know. Good, yeah. Yeah, but nice, you know. Um, first of all um, balaa ñoo dem si new song bi and uh, what you did there and so on. Mm-hmm. balaa ñoo dugg si kaa bi ak yooyu noonu. ak king bi ak fake. oo two bi. <laughs> ok man duma dugg foofu noonu balaa ñoo dugg foofu noonu you know. wax ñu wax ñu wax ñu um, what are you working on you know because. Um, ok last time. the last time boo jógoon uh, fële ne bu ñu amoon a cheat chat. yaa ngi si woon uh, yaa ngi release woon couple of songs and so on just tell me what you up to and what you are doing and what you heading to. where heading to ok comme nu ma ko waxee rek xam nga man su ma du dee yomba. Mm-hmm. ñëw ak lu dof EP bu Sixa nekkul lu yomba de. Mm-hmm. collabo dem fay nekka mm-hmm. te luñ bugg a mu ngi ñëw moo songs yaa ñëw man si EP bi. nga brika boobu dama ko saaf gaay nii rek yu gën a sig ñu ñëw gaay nañ ko pareel de. Ah. king du yomba fu ma neex laa dee folasi fu ñu hmm. expected unexpected <laughs> <laughs> ok suñu waxee king suñu waxee king mhm. junior king fan la king abuko la wala king birkama la wala king gambia la wala king serekunda king gambia king gambia tey tey maa yore caabi dëkk bi <laughs> okay, okay, that's nice. Uh, soon, a project. Mm -hmm. uh, that will be your first, EP, not so. Yeah, first project as well. Mhm. yeah yeah for sure. first project. Wow, like EP yeah. when nga ko bëgg a launch or when nga ko bëgg a génnee. waaw man si come, rek still my ngi release after lii bi sax Brikama song bi sax. Mhm. si EP bi understand. Brikama song mu Wow, so waaw so nañ xaar EP bi song la ñaata song la ok um, eight song. eight song yeah eight song kak yeah. eight song kak. Mhm, mhm. waaw nice nice let's let's talk about this. Uh, Junior King. Uh, Abuko ko you know what I'm saying? Uh, yeah. Let's talk about the Brikama song. Look at today full song Brikama. Wow, because of dama demoon Brikama. Mm-hmm. ma demee Brikama dama am dis ak a xaj bu ndaw boobu <laughs> noonu. kan mooy xaj bi. waaw dog papa. dog papa waaw xaj bu ma dee bëgg a mention turam because tey nekkul benn level. <laughs> waaye wala. nekkul leen benn level. non nekkul benn loolu nekkul leen benn level. mi koto mi. laa nekkal benn level. kan mooy koto ñoo ñooñu laa dee jox préso. kan mooy kotaam bi. fake oo <laughs> kan mooy fake OO2 bi. non ah, mooy fake OO2 bi. xam nga king su ne. ki nga xamante ne mu ne moom mooy number two. mu ne kan Hussein moom ki nga xamante ne moo wax ne mooy number oh, two. waaw hmm? Hmm. ne kook laa miin mooy fake OO2. ku wax mooy góor bi. Hmm. xamal ne kooku la miin mooy góor bi mooy brick seen góor bi. Brikama seen góor bi. so seen góor bi ngay waxal. waaw Brikama seen góor bi ak Fake OO2 ak xaj bu ndaw bi <laughs> comme ma ragaluma dara de. <laughs> comme fii ah ok ñeen ñeen reverse ñu dem ñu dem ñu dem lan moo xewoon Brikama because dama dama understand ne gars yi ne da nga dem Brikama nga egg si kaw stage bi. waaw xaw ma lan nga fa def explain ma exactly lan moo xew Brikama boo demoon Brikama. ok daam gars seen xaj bi xaj bu ndaw bi. Mm-hmm. moo génne moo génne woon di bugg a jël paat. ma ne ko ne loolu du fi am bugga jël part si. waaw because of ST ak attaque ñu. ñëwee di sante daal seen bif bi. soo mu dugga mu bëgg a jël part. ma ne ko ne loolu du fi am. travel du fi am. gam industrie bi. Mhm. bàyyi kenn moomut ko. yaay kenn moomut ko. Mhm. soo loolu dama ko doon woon ne like loolu mënu fii am. soo loolu. waaw ma film ne daf doon jël tribe loolu la doon def sax loolu la doon def sax. soo ma génnee vidéo. Mhm. man tam ma drop wan ko ne loolu du fa am yow benn xaj bu ndaw nga tëjal sa gémmiñ bi soo loolu laa ko doon taajal ma jël suma oto ma suma booy. Mhm. ma dem Brikama biri biri biri. Euh, Dog Fada sax fu mu jógee. waaw ma dis ko ma dis. si kaw stage bi good yeah sooy hmm? kan la woon. sooy kan la woon. sooy benn artiste la Samiti. Samiti. yeah. ok moo la invite woon. waa moo invite woon. si kaw stage bi. waaw wan gars ne. ma <laughs> ko <laughs> ma dis ko foofu man du ma dee wax te ko dee def laa ilaa. <laughs> so boo ko disee what happened you know. Hmm? actually lan nga ko waxoon si kaw stage bi sax. waaw lan nga ko waxoon. waa dama éeg rek. Mhm. ma ne gars like seen xaj bu ndaw bi. Mhm. na tëj gémmiñam bi travelism bi du dox. understand nga. Mhm. ma ne gars like travelism bi du dox te su buggee jaay speed damay off bi. da nga ko off waaw waaw dama koy off maa ko daxa raab du dee tegu si bit si maa ko ëppa relax amul relax. <laughs> ko benn xaj bu ndaw la dafa génn di talaba rek. waaye ñu neen xamante neen. ok um, fake and daf doon jël sites am waaw daf yee mm-hmm. léegi yow boo wàccee si kaw stage bi lan moo happen kenn attaquul la o you dama happen dama eeg dama eeg ma freestyle freestyle ba gars yëpp yuuxu mm-hmm. ma dis seen artiste bi so yi doon yuuxu ah den dama freestyle man wala gars dama fa déedéet starting dama freestyle rap man suma ma nga bañ bañuloo da nga koy enjoy te da ngay ah, yuuxu dama doon egg ma freestyle freestyle freestyle gars yëpp yuuxu mhm. soo after si mhm. si la start di nandal gars yi dis seen artiste bi foofu mhm. ma disee seen artiste bi gars yi seen param-param yi di jël ay butéel di saani ak yooyu noonu man kenn laalut ma kenn loxoom laalut ma benn butéel laalu ma dara laalu ma after police yi dañ ma escort man ak suma boy ñu dugal police suma booyee ñu dugal suñu oto bi ñu dox soo bi noonu la rajee waaw noonu la rajee si laa raj soo bi <laughs> Jine mu ne ngeen a baal you know Jine mu ne noonu la rajee yow cooy gaay la soo bi yëpp laa jaxasoo instant dama eeg xanaa cabloo vidéo dama eeg raj foofu yëpp ma dox man ak suma gang bi Kan nga ñibbi uh, si couple parrainage yee couple days commune after nga ñëw génne wa son wa bolé ci nga bolé si Dog Fada bolé si Hussein Dada bolé ci si ST wa ok lu tax nga bolé si xamna né ok dem nga nga né Dog Fada dafa two sides légui lu tax nga bo lu tax nga bolé fofu Hussein Dada ok Hussein because mom fake la fake non eh, astaghfirullah fake OO2 la. fake OO2 la waaw ku wax mooy fake OO2. Mhm. kooku laa miin waaye waxuma turi kenn ku wax mooy fake OO2 kooku laa miin lu tax nga ne moom mu euh, euh, la. because ku la ne comme man su ma neexee su fekkee ne artiste la mun naa oyee sama bopp you know euh, number one. waaw waaw number bu ma ne number dafa choose number tu mu ooyee ko boppam. waaw yow nga ne. no fake di mention tur de. waaye man lu ma miin mooy góol bi. fake oo oo two bi. waaw ak xaj bu ndaw rey naa gaay ba pare. Hussein Dara moo wax moom mooy oo oo two. waaw yow ku nekk nu ko xalaatee xamal ne kooku laa nekk di wax ku wax moom mooy number two bi. mooy fake oo léegi booy tur léegi. ragal. ragal <laughs> man lu ma wax wax naa ko góor bi lekka naa ko. ok fake OO2 bi. ok góor bi noo ko lekkee góor bi noo ko lekkee. gis nga Gambia. Ah? waaw fii ñoom Tupac. Mhm. ñoom Biggie. Mhm. ñoom Jay-Z. Mhm. ñooñu yëpp dañ leen dee dis. soo fii ku bëggoon ñu dis la. bàyyil woy si industrie bi la bokk dañ lay dis boo disaat la. bàyyi ke moomu géem bi yaay ke moomu géem bi soo ku bëggoon ñu dis la. bàyyil woy fii koo fi gis da koy dis. Euh, keneen mun naa nekk di déglu wala mu ngi seetaan mu ne Junior King mu ngi choose sides comme Dog Father nu mu choose sides. non man choose suma seet ok xam nga right now nit mun naa wax ne Dog Father. mu mm-hmm. ngi faral attaque. Dog Father mu ngi faral eh, attaque tey Junior King mu ngi faral attaque sorry. man faraluma kenn. man dama ñëwal yow nga ne yow nga ne euh, Dog Father mu ngi faral ST keneen mun tam mun naa wax ne Junior King mu ngi faral mu ngi faral attaque. la loolu mun da possible. man faraluma kenn man dama ñëw. Mm. gars yi bugg a def travelisine man ay gaynde du fi am. Mm. moo tax suma song bi ma waxoon gaynde like. Mm. il a faka samba one side nga soto la. Mm-hmm. so loolu laa doon taajal gars yi bi du am because of game bi ñëpp benn leen yaay kenn moomu ko papi kenn moomu ko ku bëgg ñu dis la. bàyyi wooy dip sa den ko dee dis. <laughs> <laughs> waaw ok léegi nañ ñëw léegi euh, wax nañ si Dog Father wax si Hussein dara léegi. Hmm. góor bi sax yow ban problème ak nga am ak góor bi because góor bi moo waxul dara mu ngi noppi. ok man lu ma wax is normal góor bi. Mhm. lu ma wax mooy daaxuma rap. yow daaxula rap. non daaxuma rap. loolu comme ST daaxula rap. góor bi daaxuma rap. ST bi booy. ok yow loo ko foog yow koo ko foog xamal ne koo. <laughs> ok ST góor bi daaxuma rap. esti ma mooy góor bi. ok daaxu ma su nekkee kooku la. kon daaxut ma bi daaxut ma raab. waaw su ñëwee si raab. daaxu ma raab. feeg oo ootu. man Junior King maa ko raab. Mhm. doog moom du ko si dee compter moom benn xaj bu ndaw la moom moom xam na ne sax man du ma moromam man léegi duma ko dee compter. waay waay waay man su ma songi sax man su ma songi sax soo ko dégloo yow sax xam nga ne ma maa daaxa doog raab. non déwul yow sax xam nga yow yow yow yow yow xam nga ne ma yow xam nga ne maa ok man nu ma ñëw fii duñ compete sax duñ compete non wat ah, bot si sa xel bi bot si sa xel bi moo mun bot yow si sa xel bi sa xel bi bi mu lay wax ne dégg dégg man lu ah, nekk suma biir xol bi man <laughs> man dama koo téye suma biir waaw bi suñ ubbi suñ ubbee line si gars yi wax ndax jin yow moo mun ah, dog faada ndax dog faada moo mun jin man bay naa di compete dog papam yi ak nijaayam yi laa nekka di wax doog benn xaj bu ndaw la moom génnee naa ko si liste bi suma ma song bi dafa ëpp boppam man nekkuma moromi doog ma maa wax nijaayam yi mhm. ak papam yi man ñooñu laay compete ñooñu nga nekka man ok ok léegi yow soo waxee ne yaa góor bi rap waaw Junior duñ dee gis Junior mu dem kiw city duñ def duñ dee gis Junior mu dem stade ak yooyu noonu mhm. Junior abu ko rek la dee am lu tax Junior demul Serekunda Sparks ok man man su ma miinee ne ma daha ah, góor bi rap. Mhm. ok rap la but moo ma gën a biig. ok moo la gën a biig. waaw texte yi legend la. dañ mhm. respect. Mhm. moo ma gën a film. waaye yow yaa ah? ma moo a film. waaye su ñëwee si rap. su ñëwee si rap. daaxut ma rap. daaxut la rap daj fii kenn ma rap. tegu rek lu may teg kenn du ko teg ñaaka suma ba daj starting ba ending. <laughs> muy ah. starting bo ending rap yi starting bo ending A to Z kenn mm. daaxuma rap ñëpp maa leen daaxa rap mm. léegi leer na ku ma gëmul demal YouTube nga saa Junior King nga déglu suma song bi <laughs> ok nice ah, nañ déglu nañ déglu sound bi once more ñu dem ak sound bi ah, suñ ñëwee suñ ñëwee suñ jógee commercial ñu ñëw ah, because song bi laa bëgg ñu ñu discuss all the things that you said in the song dafa mel ni song bi daal ñu bëri nga si attaque you know ñu bëri nga si songa you know dóor leen pok leen ñoom maakan baa fele ni le waaw <laughs> ñuy yëpp ah, ah song you want once more ñu déglu waat song you once more then uh, you know yeah Sila, no. laftale gatol kuma dinye sen sen aliyata brikama ila godning aliya samba nyenang alni wulundimu mum benta silo kan ala fana samba nyenang nal bota woto ta sukuta ila fake number tuñin la fala aliye be sambande jang 5555 aliye londi ñatilingola jinio ting abuko boyo ba tela wolwo rabalu fama nata rajna soobirikaama rajna soobirikaama dama di seen ATC dama di seen ATC donc sa baay bu ci game bi amul fuloo mënul suwaak fake number two attaque moo ko teres paak ku tiye mic drika ma may sa tuupaak man awma lu may ragal boy kaay leen raak ma ne leen yàlla seen time jeen attaque tak jinne du nit du jinne way nak mom dafa rax ga music su deme wool white man mata kay nak ma jox len ca cin bu mag du tela bax nit bu mag du tela wax jaanju re nit dafa rax bif bi dafa wara ja lolé may attaque brix melni kuy ñaan sa rax raap bu su suwaak may kaab ngeen don tera yo bolé ma ay góor ma ñew fekk fi ay jigen dogi di rap di tasu di masam ni góor jigéen te bati rapati no bati jofena rofena borena gorena dugg si pati bi fansi si begati ma degati sax di ji sati right na so birikama rajna sobiri kama dama dis sen atc rajna sobiri kama rajna dama dis sen atc ka yo dele la kingti ngete fa la kingti ilon kul manke fenti ndoke ila ke ba la fatambi la telti kate ka tegu kantele no haniye bang musigo kantele dang molong pulo bang ida fata ba ko kamba, ba fama lon tene na buka ma fa entele fama nata ke mo falinta dindo kara fa balfa ndele bricks boxi ba janjan suta killing freestyle killing gambia beko ko jinio dama killing ila faka gemo samba one sen kanete sotola ndele bricks stay one net nyine soto bang takay lal dis apareta kiw fandi subo sange demo bulan ko buah buwa tele nying telela rapa fala king tinyil ko te sonna sanji jel medula te kang fan sol nyala ama fk king lu fama right na so biri kama ñu dem commencer su ñëw rek ñu jékali lolu forever, then I respect. Roll out for me respect, no, I respect. Ladies and gentlemen, you know the boy T Smalls, aka Katato, and you're listening to 360 Show with Masterful. When the music plays, Masterful, you better play it one more time. Music. Yes, yes, welcome back. Welcome back from that short, short, short, short, short commercial break right there. Uh, just to remind you, you're listening to Capital Radio 100.4. Of course, my name is Masterful. Uh, Junior King right here uh, is my guest. Of course, uh, yes, we're talking about the uh, the new song, uh, Brikama, you know what I'm saying? Uh, Junior more than gonna bad, yeah? Then Brikama, you know, it's in our stage, this rap, I see, rightful soul. this good be, this fake number two be, come to go ahead. Eh? <laughs> Very interesting, yeah? Yeah, uh, Genio. Yeah. Uh, nice one. Song, we, it's crazy, you know, it's mad. mm mm-hmm. must Uh, the Masad Lutamid, uh, how much second verse bila. Yeah. The, first verse bila. Second verse bila. Yeah. Yangi use fluid dog father. Wow, nah. Tengah tengah tengah flow comme dog father fofu nonu. Be pare yang this at the same time. Okay, okay, harmala. Like lulu. Mhm. gis nga song sam song sam bi. waaw song sam woot sam yi ma delloo ko ko woot si yim doo wax yooyu laa téye waaye jëluma floyam bi de. man dama ko wane like si ñëwee si soose. ok déglul euh, like su dama ko doon woon su nekkee si soose. Mhm. dama ko fekka si soose. ma woon ko ne man papam laa si soose. <laughs> ma ñëw si olof mooy ma woon ko ne man papam laa si olof. soo loolu la man doog. papa mii laa compete te ñooñu sax ñoo ma spell waaye man ma nekk ab gars ok dañ dem si line boobu la ñu line boobu ñu mën a. ok like lu ma ko doon taajal mooy. Mhm. ndele ndela ndele la kingti mm ngete fo la kingti ila onkul manke fenti mm -hmm. ndoke ila ke ba la fatambi la telti mm -hmm. bito kan tele no hani ye bang misigo kan tele dang molong ulo bang ida fata ba ko makam ba fama <laughs> lon tenene buka ma fayen tele fama nata gemo falinta dindingo ka rapa balfa ndele brace boxi ba jan jan suta killing mhm. freestyle killing mhm. gambia be ko junior dama killing mhm. ila faka gemo samba one side kan nene te sotola ndele bricks te one net nyinende so soto bang takai lal dis apareta kiu city fandi subo sange demo bulang ko ite buwa ba nying tele la rapa fala king ti nyil ko ite sonna sanji jelmbe dula te kang fan sul nyala ama FK King rapolu fama right now so birikama dama ko do su ñewé ci sosé sa man maa ko gën a dégg mhm. te maa ko daaxal si soose moom du dee tegu si bit man dama dee tegu ma woon ko ne su ñëwee si olof mhm. man boobu moom kingam laa kingam laa si olof moom naa ko jàngal jàngalaat ko soo dama ko fekka si soose bi mhm. ma woon ko ne man kingam laa understand mhm. donc sa muy oote Brikama sa gënul maa xam Brikama di <laughs> maa ko gën a xam Brikama a a a si xeeb mhm. donc maa ko ëpp a sa tay maa la fuul dëkka caabi dëkka bi maa ko yore <laughs> comme dégguloo ma de suñ ah, ah. man Brikama laa yaroo bu ma mag di donc maa ko gën a xam Brikama abu ko laa juddoo depuis suma yaay di dem Amérique mu yóbbu ma Brikama mhm. soo ma nekk Brikama tamit soo ñaari place yi yëpp laa xam motax waaw moo burkama waaye abu ko nga de gën a rep ku ku la déglu waaw because of foofu laa judo abu ko la gën a rep waaw you know ñene uh, yi sax soo disee dog fa dañoo wane xam nga kii booy abu ko ñoo ya, bëgg a dis burkama so ok like foofu laa judo foofu laa judo abu ko abu ko yeah bo depuis suma yaay abu ko nga judo abu ko nga nekk di rap. waaw abu ko laa nekk di rap. Mhm. so depuis suma yaay di dem america ma dem burkama mhm. understand nga mhm. so nekk naa burkama depuis ma nekkan do ba ma mag soo loolu moo tax ma liit ko nag lu ma xam xamut ko mm-hmm. understand nga suñ ñëwee si olof mm-hmm. lu may teg papam yi sax duñ ko xalaat suñ ñëwee si soose lu may teg papa mi sax duñ ko xalaat moo tax gars suñu waxee loolu rek moo ma dee tii suñu la tegalee baax ñu ne yow face to face ak dog pare nga <laughs> du moom kese de moom ak papa mi ma oda leen malaan billaay wallaay di dinañ sol ma neew ma caade papa moom di si duga papa non man doog naa jékki-jékki rek mu ne waa xam dama xeeb doog dama xeeb doog nduubi sax nañ nañ teg baax you know moom moo daan nduubi one time déedéet dama ko xeeb kon si ngay gis doog di nekk Fatou Bintou bés boobu moom dama ko xeeb su ñëwee si feek oo oo tout <laughs> ay doog dama ko fa xeeb dama ko fa laa xeeb billaay wallaay tallaay nañ ñëw nañ ñëw si song bi waat ok Makamba. Waaw kooku benn dof la nii nekk si media bi di bari wax rek. moo tax ma jotee moom wala. nga hmm? jotee moom wala you know da ngeen clash. nga nga boole ko si song bi nga nga nga throw some words mom tam nga dal ko si wala. ok Makamba dafa nekk si tiktok bi di wax rek di jéem a jël paat moom tamit daf doon jéem jël paat. ok si jéem a jël paat bi. waaw. fa la doon jël part parti la wala. waaw wala gars yi waaw gars yi la doon jël <laughs> soo si moom benn gémmiñ bu réere rek na nga génn si mbir bi soo si laa wax ne daa fata baa ko maakam baa mm-hmm. faama xam dafa waxoon ne daf may dóor nii ak nii soo si ital mooy wax yu bari yooyu rek mm-hmm. soo si laa ne daa fata baa maakam baa faama loon te ne maa afa entele fama nata gemo falinta dindingo rapa balfa <laughs> Understand Junior King right here of course okay. uh, 100.4 the 360 show Masterful is right here you know what I'm saying we're talking about the Brikama song which is of course uh, making a whole lot of noise on the internet yeah uh, yes um, am not ñu what I mean. You know, can kan Junior King but you, this all the rappers if I'm gonna du du affect career. never lan nga lan nga foog si loolu noonu comme ñu lay wax ne ok lii Junior King is too young mu ngi am feature mu ngay ñëw waaye moom mag yi la nekk di tàgget. mag yi la nekk di dis. foog nga ne dina am seed wala dina am feature si biir Gambian music. gars yi dañuy nax seen boppa game bi game amut young amut lii rap rap la. Mhm. rap rap la kii rap la rap soo fii ku fi nekk rap de lay dis. comme nu ma leen ko waxee tubaab da nga ko dee dis dib da nga ko dee dis mhm. soo kan moo nekk yàlla fii boo waruñ ko kenn nekkut yàlla fii soo foog ñu dis fii soo nekkee soo nekkee leneen sax da lay dis soo biigee comme kan sax da lay dis as long as yaa ngi yaay wéy yaay nekk rappa da lay over dis mhm. fii papi kenn moomu géem mhm. yaay kenn moomu géem te fii amut soose amut olof amut ñëpp benn leen so fii ku fi nekk rappa da lay dis ay nekk rapa mm. ay nekk rapa Kuma ne, kuma ne ci si game bi lay ya dis ma may ya xool kuma ne ma dis because of rapa la ye ok so amul so so so len amul bif sa dang ko dis so ko bëggee dis sa dang ko dis ah, kuma ne. kuma ne man suma feel like like ki rapa so tay mun ngaa mun ew rek nga dis attack sa man kuma ne lay ya dis ci game bi kuma ne non dama wax comme mën nga comme su la waxee ne ok kuma ne mën nga ew rek bena benn bés nga xam nga la la sax man suma feel like tagay sa bu ñuy ku ma fii leeg pour dis dama koy dis loolu laa mën a wax ku ma fii leeg waxuma kii ah, waxuma kii waaye ku ma fii ah, leeg pour dis dama koy dis soo waxee ne ku ma loolu ñëpp ñëpp nga si boole not so waaw waaw attaque lu tax bañ a wax attaque sax mun naa koo dis dégguloo ma de hmm. man lu ma la wax muy wax bi man uyu ma cuusuma seet de lu ma la wax muy wax bëgg a dis dama <laughs> koy dis ah. déedéet yaa ngi ne Fada mu ngi choose sides da legi ma ngi gis ne itam yang ngi choose sides because léegi bëgguloo wax turi attaque ne attaque sa, mun na eewu suba sa ma dis ma si song ah fii mun na mun na ma si song diem bi comme nuñ ko waxee re fi ku wacha yon rek ñu dis la <laughs> ok ku wacha yon rek ñu dis la ñu dis la attaque sax eh. su wàcce yoon wi nang ko ku wacha yon rek ñu dis la non da turam boy bro comme deglo ma E bo Z ta, ah, ku wacha yon rek ma dis la man soo yisee man mm. soo yisee soo yisee ma dis mm. because game bi dafa dem ba léegi danga ko bugg a def like set danga ko bugg a def like set tribalism so loolu laa doon woon gars loolu du fi am tribalism bi du am ok tribalism du fi am waaw good so fii ku wàcca yoon de lay dis dama lay dis ok so su fekkee ne wàcca yoon la loolu laa bëgg a understand wàcca yoon in one sense su fekkee ne ok for example ah for attaque wàcca na yoon bi danga koo dis wala da nga koo dis wala loolu laa bëgg a xam. kan <laughs> waa attaque sax. Mhm. su mistake yi sax dama koy dis fii ku mistake dama lay dis <laughs> léegi jeewut léegi ku ah, mistake fii game is A ba Z attaque su mistake yi sax dama koo dis. A Z ku fi dama lay dis suba sama dis ko mun naa ew suba sama dis ko. fii ku fi snitch ma dis la ku jaarut yoon ma dis la. taakay sax bokk na si. starting ba ending A Z fii ku jaarut yoon ma dis la. am na ji ne ma la laa mun a understand lu tax mm. bugguloo wax turi attaque da nga wax attaque sa su baye yon dama ko dis lu la bu nga diga ok attaque sa starting bo ending starting bo ending mention nga Hussein Dara mention nga mention nga eh, ST mention nga Dog Father ñoom yëpp bool wa starting bo ending muy attaque ST Hussein Dara ku nekk raapa mhm. waxuma ndawi de mhm. magi mhm. ku jaarut yon ma dis la legi starting bo ending ok yow yow lo min legi jaarut yon comme su fekkee ne artiste bi lan la def. man yoon ngaa miin ne comme kii dafa bàyyi yoon bi léegi dama ko war a des. fii ku fi snitch <laughs> ku fi snitch bro comme dégguloo ma de. ku mhm. jaar yoon ku fi snitch mhm. ma dis la. Mhm. yee man koo gis ma dis ko rek xamal ne dafa am. dafa snitch waaw dafa def jiko bi nga xamante mënu ma koo naan dama xam ne lii snitch la ma dis la because fii nga dee gis Gambia rapa di wax ra ya- rapa di wax moromi rapam ne yaay suma king. <laughs> loolu jikko gubi la. <laughs> ok Rafa ñoo ne def loolu. waaw loolu moo mel ni lekk. kooku kooku gëmu ok beneen Rafa du wax ne beneen beneen Rafa am nekk. non comme yaay suma king. waaw loolu waaye loolu normal na su fekkee ne nit moo la mun moo la daxa moo la daxa. waaw waaw loolu tamit understand naa ko. soo yoo ji ne kenn daxul la kenn daxul la rap. Gambia ba mu daj maa fi daxa rap. attaque sax yaa ko daxa rap. Gambia ba mu daj yooyu ma. soo xoolee boo xool tamit. Mm-hmm. like rappa bi tamit xëy na mënut wëy mhm. soo demee ba nga feel like ne mënuma wëy <laughs> mhm. mën ngaa wax ne kii mooy suma king amul problème soo soo mën waaw soo mënut wëy tamit mën ngaa wax ne yow ban rappa wax loolu noonu fii mu ne ah. kii mooy suma king yooyu ñëpp cappan nañ ko si media bi soo si la man du ma dee si media bu baax danga ah? maa man du ma dee nekk si media bi bu baax danga maa wax ma ma xam kan moo wax loolu noonu booy. fii ku wax ne. Mhm. mooy OO2. Mhm. man nag maay number one Gambia. man du ma musa fa maay number two maay number one Gambia ba mu daj. Ibrahima yaay king bi tamit. maay king bi yee. king bi te song si te yëpp dina leer. <laughs> Brikama bi xay la rek hello bi ñëwaangut yëpp dina leer. King right here of course 100.4 you know one thing I like about you da nga bool trop da bool ba pare da hard you know keep that up yes. Um, Euh, yaa ngi wax ne euh, project baa ngay ñëw EP baa ngay ñëw. first of all wax ñu because maa ngi gis yaa ngi def vidéo uh, Brikama bi. within uh, uh, what duration ngeen job song bi ak vidéo bi yëpp because dama gis si tànga tàng bi nga ko job rek génne ko. waaw song bi. Mm-hmm. like dama toog. den mm-hmm. toog mm-hmm. ma xalaat understand nga. lu xew Brikama ak industrie bi li nga xamante ne jaarut yoon mhm. so si laa boole ñoom yëpp ñi nga xamante ne jaarut yoon si industrie bi mhm. ak lu lu xew Brikama daal mhm. loolu laa tiye yëpp ma join ko waa ma binda ko song release ko release ko yee after ñu te amul waaw te doo si mun a wax dara because of song bi yëpp a rek yëpp a correct mhm. soo ñëwee si soose mhm. dafa correct kakak dafa teet kakak mhm. soo ñëwee si olof dafa teet kakak soo ñëwee si hug bi dafa teet soo amuloo loo si wax because yëpp kenn amul lum si siy wax because yëpp dafa correct kakak te song bi dafa good dafa correct te dis bu dal la waaw because dama ñëw si gars seen own ma jaay ma woon gars ne maa leen daxa rap si loolu ma ñëwaat si olof ma woon gars ne fii fii sax suñ fi ñëwee sax maa leen fi daxa fu nekka Follow leen ñëw rek ñëw Junior King right here 100.4 Master of course yeah uh, Togo baa tànga Jir, of course um, um, um, ñu you sa biif bi You léegi ñu jógee sa biif bi play. léegi ñu waxtaane a career. I think loolu it's very important because you're mm-hmm. very young you're coming up you know you're doing wonders in the in the music industry mm-hmm. um, the, let's say in the next couple of years let's say at bi balaa moo jee mhm. fan nga nekk di séntu sa boobu man at bi balaa muy jee mhm. QCity maa la wax nii QCity damay dem QCity yee dama ko yow ngay wax yi ndànka mm. moo projects à commune gars yi nañ ko préparé rek QCity mm. nañ ma fa cappa nañ ma fa cappa abu ko moom feesal nga fa abu ko si xool bi moom <laughs> ñu dem testing is Serikunda is suñ foofu noonu ñu dem ñu dem ñu dem ñu gars yi nañ ko préparé naa dem Q City gars yi ñu ngi pare sa fans yaa ngi pare yee ñëpp man suma gars yi die hard leen ñu ngi ko pare every time te dinaa dem Q City yee ko pare am fans hmm, yee Brikama ma fa am fans mhm. abu ko Gambia yëpp ba mu daj mhm. yee Gambia foo dem man man fa am fans time bi maa yore caabi dëkk bi waaw ubbi fu la neex. waaw fu ma bëgg ma ubbi ko. <laughs> yeah yeah triple three one zero zero four triple three one zero zero four ñu jël some uh, some one or two callers uh, uh, balaa time bi dañu jàmm ah. Junior King right here of course all the way from Abuko mu ngi génne benn sound bu neex uh, brand new sound of course bu mu tuddee Brikama mu fa dóor. Dala ST mu ngi fa dóor Dala you know O2 bi mu ngi fa dóor Dala you know uh, uh, uh, Dog Father you know mu ngi fa dóor Dala Makamba ñoom foo la ah? ñoom foo rek nga fa dóor Dala ñoom ñoom rek nga cuuc foofu noonu. <laughs> góor bi fake number two bi. Dog Makamba ñoom foo ñoom foo nga nga nga waxtaanal si song bi. góor bi eh, góor bi. feeg number two bi. ku bëgg a déglu sound bi right now fan la nekk fan la fan la war a dem. ok pour mun a déglu sound bi. mun ngaa dem YouTube. Mhm. mu fa. waaw soo demee YouTube nga saa Junior King rek di nga ko cappa soo demee audio mark tamit. nga saa jee di nga ko cappa. waaw ku bëgg a déglu sound bi ku bëgg a seetaan video bi you can go there and check it of course léegi maa ngi ñëw ubbi lines yi but uh, no foul no no crazy stuff uh, ku fi wax loo xamante ne jaaru yoon rek dañ laa génne si line triple three one zero zero four triple three one zero zero four it's all love it's all music you know what I'm saying so I def music for new dollar dollar daala ku bëggut a ku bëggut rek ñu dóor la daala rek nga bàyyi ñu industrie bi yeah yeah ñu jël hello hello hello hello ya, yes waajal sa rido bi tuuti ñu mun laa dégga yeah hello yes nakam aha Moustapha waaw waxal waxal Junior Singh maa ngi ko nuyu ah, kooku la eh, Aïcha la Aïcha Aïcha Aïcha from eh, si naka la Costa Road Costa Road ah, Junior Aïcha mu ngi waxa yow ok Aïcha man lay fay <laughs> yaa ngi fay maa ngi cool soo cool yow loo bi nice na dafa mel ni kooku dafa daw you Ah, triple three one zero zero four triple three one zero zero four triple three one zero zero four yeah ñu jëlaat kii tamit ah hello hello yeah noo tur ak ñu ngi fine noo tur ak fooy eh? kole maa ngi tudd Fama Fama Fama fooy kole eh? Brikama Brikama yeah ok Fama ah, Junior King laa déglu Junior King taji thanks waay bilaay cofa nga ko de jërëjëf dama surprise na gars yi biir kaw ñu ngay kool sax ñu ngay ñu ngay wane track bi dañ ko lekk dama ko laaj nag bilaay thanks waay jërëjëf waay yal na la yàlla jàppale amiin waay amiin amiin thank you triple triple three one zero zero four triple three one zero zero four balaa time bi ni ñu jàpp ah ñu jël fii kolos triple three one zero zero four So koolee nga wax ñu noo tur ak foo dëkk yi nga wax junior alors. wàññi sa radio bi tuuti wàññi sa radio bi tuuti ñu mën a wax ak yow. wàññi naa ko dem ma de. waaw ñu ngi laa dégg noo tur ak fooy koolee. Ibrahima Diba rek ci flow. ah. Ibrahima Diba. eh Ibrahima Diba. Eh, Sarah to you man. Sarah man. waaw Ibrahima ko kan, ñaari. Hussein Iman. Yeah, looking up I was recognized. It would be our skin of kin who can do Thanks, bro. You're welcome. Berapa ya? Ya, I see nih boy. Dinner me when some new comes in. She don't see many from one month ago. I was video video video four.

Yeah, Lamin Debo right there. Lamin is a citizen, man. Triple three one zero zero four. Triple three one zero zero four. zero zero four ñu jëlaat kii tamit ah alors waaw rëcc nañ ko ñu jëlaat kii tamit ah waaw dafa line maa hot ah hello hello hello yeah no tur ak fooy koole waaw hello hello waaw ñu ngi laa No noo tur ak ah one Thierno laa dégg ah

maa ngi koolee Brikama Batman nga booy Batman moom muy ti ñoŋ taal la booy. donc des wori after me ñoo kono. triple three one zero zero four triple three one zero zero four man lu ma surprise nag man na foog ne gars yi gars yi Brikama dañoo aal dañoo nii waaye kool yi ñu am is also in love from from definitely. ni e do kenn do kaa see joori fa ñaadi <laughs> definitely man ñu jëlaat kii hello. <laughs> waa ñu ngi ah, la ah, waaw waaw. ah ñun junior de apprécié nañ ko torop. jërëjëf waay. waaw parce que mu ngi liggéey xale la. Mhm. waaye ah, one thing mu fa man lu ma ko bëgg a advice rek it's about ah, youth tribalism bu mu di wax. ok yow that one dafa lii torop dafa dig torop so suñ ko wax dañ war a bàyyi xel naka lañ ko waxee. parce que attaque su oto yee daf dee fees Gambien su ñoo paree fees. NC suñ fa too suñ ko ootee Gambien si ñoo ko dee fee moom tamit keneen ak keneen ak keneen so foog naa when it comes to music daal mm-hmm. music foog naa Gambian si yëpp la man attaque soo xam ne dama ko dee overfeel mm-hmm. NC mm-hmm. ñoom jigul everywhere so yaa yeegee time boobu ñu nañ dee wax ne duñ dee déglu Gambian music waaye léegi moom macha allah dañ ko dee sax déglu so I don't think it has to do with tribe foog naa lii la rek comme ku nekk ko ko ko song foofu nga mun a demal parce que mu ngi wax ne koo xamante ne it's doing wrong te gis naa attaque yi ne gars yi ko diis mm-hmm. mu yóbbu ko police waaye moo waxu loolu mm-hmm. waaye mu ngi wax ci yeneen yi soo dafa mel ni moom dafa fix side rek du noonu <laughs> ah. Ah, ah affaire yi moom da nga koo seetee different angle waaye waaye loolu ah, ah parce que attaque def na fi rong yu bëri waaye waxu loolu noonu definitely definitely waaw nu la doon des ma ne la yow dafa mel ni dafa mel you know <laughs> ah ñun nag ñëpp xam nañ loolu Gambie ko mm. eh, man faralu ma kenn ñëpp laa emale waa ko ma ñëpp benn leen ci man. mu ne yow attaque nga faral. ñëpp ok waaye mu ngi mention something as well dafa nekk lu sensitive loo xamante ne you know. window comme su existé sax su music industry industry ok ok we voilà ask, we the artists or we ask the radio presenters mhm. dañ ko war a avoid si si you si si si si scene bi you know because soo seetee Junior King am na olof yi ko support am na soose yi ko support ok yow da nga di tribalism su fa duggee rek dafa dafa andi problème ok ok da nga te du TikTok waaw da nga dee seetaan vidéo te su ma waxee like tribalism waxuma ñëpp mhm. maa ngi som some bu like am na ñi nga xamante ne ñoom den téye game bi like ok ñun ñun soose leen ñun olof leen mm-hmm. so ñooy man loolu laa doon leeral ne ñun yëpp benn leen game bi amut kii amut kii so moo tax suma song bi ma woon gars yi la faka géemoo samba one side mm-hmm. ate soto la ñëpp benn leen ba ñu jël euh, ñaari kola rek den suñ jëlee ñaari kola ñu ñu ñu ñu wrap ah? bi hello hello Yes, bro. Not to that fair color. Eh? Yeah, I'm out to that Dante, you know, I call it Bricama, you know. Yeah, I call it Bricama. Yes, man. Okay, nice time. Nyung lang nyung ladig. Yeah, mga ini sa son Virginia thing, you know, it's smando, no fata na na. My cool bro, my life. Wala sa mga boy ask on, you know. Okay, I go. Yeah, yeah. So I see after the. Yeah, Batman nga. Yeah waaw da ngay def lu garaaw nag Batman. yaay gaaw thanks fam thanks fam. waaw waaw waaw lii you know you have to keep it up. for sure for sure bro for sure. ok I gaaw borom baax music industry Gambia yàlla bëgg naa dem ci kanam rek forward only la nii dina xam amiin waay I'm ni nga naa defee nii mooy loolu amul stress amul mer ku mer stress booguloo si biir bi nga xam ne for sure bro for sure yes yes yes so bi i am naa suma suma boy bi sax mu to laa on the SD sul di jam bi waaye du dara nag <laughs> <laughs> thank you bro thank you <laughs> mu ne SD esti samung laa déglu yi na waaye esti mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi si European tour ya. ñu jël one color one color ñu rap pa one color last color last color hello hello bro naka naka ay fa wa ñu sori di tuuti nga nga gis ñu mëna waxtaan yeah waaw la sniper ino ino brikama ino. sniper boy dafa mel ni gars ñoo nekk di call ah waaye waaye waxtaan nag boy ah

Junior King Batman là bữa cũng non là bữa kia con nó đấy. EFC man, yeah, over go. yeah, Thank you so much, bro. Thank you so much. Yes, uh, kola si jehna tak tak muna nyo jehal kola. Yep, yep, yep, yep. Time be jehna tak tak. jine lo am pour tago pour wasa fancy rendez-vous falla kan na mixtape kan na EP bi di na ak yoy non you know ñu wrap up ok maya was suma fancy yëpp maya gis gars sen jàppale bi mhm. ak ñu call ni. yëpp xam nga surprise sax ñu call yep wa Brikama and you so love you know <laughs> respect respect respect respect <laughs> doo koole ko mbafa la na fansol bi ya baraka boy mo ting bi kan atel yàllu ne long EP mba kan ne ba be silo kan ne sen sen ate mela drong so mba fle be a baraka mhm. birka ma so ni momo la faka la moy mhm. eta youtube ba jelale mhm. foga para eta mm, tiktok momo la faka video challenge ke drong ta tiktok ye jinio king saj mbegala video challenge kane so mba fansul be a baraka mo ting abina ne alo ne nyaadi long jinio abuko boyo respect thank you so much thank you for coming in i'm saying it's all love it's all love you know i'm saying nothing more just love you know what saying music music la music foog ñu cuucante you know but saagaay tribal yooyu noonu ñu génne ko fa respect to Junior King of course he's doing so so amazing job you know what I'm saying definitely thank you so much for coming uh, it was a pleasure you saying definitely a beautiful session yeah thank you so much